benn tesalonik saar ñett kon nag ba nu ko mënatulee dékku nangu nanu ñu bàyyi nu nun dong ca dëkku aten te yónnee nanu timote sunu mbokk ak sunu nawle ci liggéeyu yàlla ak ci waareeb xabaaru kirist yónni nanu ko ngir mu dénk leen tey feddali seen ngëm ngir kenn bañ a raf ndax nattu yi ngeen di jaar yéen ci seen bopp xam ngeen ne nattu mooy sunu cër ba nu nekkee ak yéen sax waxoon nanu leen waxati ko ne faaw nu sonn te noonu la ame yéen xam ngeen ko noonu ba ma ko mënatulee dëkku yónnee naa ngir xam fu seen ngëm tollu ngir ragal seytaane fiir leen ba sunu ñaq neen waaye léegi timote bawoo na ci yéen indaale xabaar yu neex ci seen ngëm ak seen bëggeel xamal nanu ne yéen a ngi am pàttaliku yu rafet ci nun te namunu lool ni nu leen namee yéen itam noonu mbokk yi ci biir tiis ak coono yi nu nekk seen ngëm dëfal na sunu xol ndaxte noo ngi dund dëgg-dëgg ndegam yéen a ngi sax ci borom bi ndaw cant yu bari yu nu war a sant yàlla ndax yéen ndaw mbég mu bari mi nu am ci kanamam ndax yéen guddi ak bëccëg nu ngi wàkkiirlu ci ñaan yàlla ngir gis leen ba mën a mottali seen ngëm na yàlla sunu baay moom ci boppam ak yéesu sunu boroom jubal sunu yoon ci yéen na leen boroom bi dolli mbëggeel gu tar ngeen bëggante te bëgg ñépp ni nu leen bëgge nun na samp seeni xol noonu ci cell gu amul sikk fa kanam yàlla sunu baay ba bés bu yéesu sunu boroom dellusee ànd ak gaayam yi sell yépp